وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإسلام الدين وبعد فاليوم نصرق علينا صمت العيد فطر المبارك ببهجته وفرحته وأنسه ومسرته ليفرح الناس وينعموا بفضل الله تعالى وجوده وكرمه حيث يقول الله الحق سبحانه قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم لسائم فرحتان يفرحهما إذا أفسر وفرح إذا لقي ربه فرح بصيامه ويقول حافظ ابن هاجر رحمه الله اظهار السرور في آيات لسعر الدين وهو يوم تقيم عباد الله المؤمنين بحياة الدين حيث ينتظرهم بفضل الله تعالى أتكرهم أعظم يوم القيامة ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم صيام والقرآن يصفعان لأب يوم القيامة يقول صيام إن ربي إن إني مناته فآمى وصهوى بنهاري فصفي فيه ويقول القرآن مناته نوم الليل وصفه وقال صلى الله عليه وسلم عليه ويقول صلوات عليه وسلم عليه إن في جنته باب يقال له ريان يلقل منه صائمون يوم القيامة لا يلقل منه أحد غيرهم والإيد فرصة لترويه النفس لتصير بعد التعب وتفرح بعد الجد والنسب لتعود أكثر عملا وأعظم نشطا وعن انس رضي الله عنه ان صلى الله عليه وسلم قدم رسول صلى الله عليه وسلم مدينه وله يومان يلعبون فيما قال ما هذان يومان قالوا كنا نلعب فيما في جاهلية فقال صلى الله عليه وسلم قد أبلكم بهما خيرا منهما يوم أدها ويوم الفطر من مزاير فرحة في إيد توسعة الأهل حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلى ما جرت عليه حتى ما تجعل فم امرتك أن تكون تلك التوصية من خير إسراف ولا تبذير حيث يقول حق سبحانه والذين أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك خواما ويقول سبحانه قل واسرابوا ولا تسرفوا إن الله يكون مسرفين ويقول جل وعلا ولا تبذر تبذيرا إن مبذرين كان إخوان الشياطين وكان صدري كفورا وفي الإيد فرصة عظيمة لتوديد لتوديد علاقات اجتماعية بتاوري وتلاقي ونسل المودة ورحمة والصفاء وتوثيق رابط إنسانيات وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زرع له بقرية أخرى فأرسل الله عليه مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين ما تريد قال أريد أقالي في هذه القرية فقال هل لك عليه من أمة ربها وقال لا خير عني لا غير عني أحببته في الله قال فإن رسول الله إليك بأن الله عز وجل أحبك كما أحبته فيه فلا تكون عزيز ونفعنا وصفنا ولسائر المسلمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قادم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد لا شك أن أولى الناس بالبيت وسيلته وسيلته وسيلته رزائر وسوال في هذه المواسم أتيبهم ذو أرحام حيث يقول نبينا وسلم من أحب أن يبسط له رزقه وينساه له في أثاره فليسر رحيم في هذه القدس يقول سبحانه أنا رحمن خلقت رحيمي وسقط كما لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ويقول سبب ربي والسلام عليه أيها الناس أفسوا السلام وأقيموا الطعام وصلوا أرحاما وصلوا أرحام وصلوا بليل والناس نيام فالقوا جنازة بسلام وريها النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى صدقة الفطر كان الله أسرة الأشياء أوله يطهر جسده من الذنوب وثانية يؤتق من النار وثالث يسير صومه مقبولا ورابعه يصدق الجنة ويستاب جنة وخامس يخرج من قبل آمنا وسادس يقبل ما عمل من خيرات بتلك السنة وسابها تجب له صفا يوم القيامة وثامنا يأمر على صراط كبار الخاتف وتاسيا يرجه ميزانا في أصناء ميزانا من حسنات وآسر يأمر لك اسم من ديان أسقيا ويجب إخراج صدقة الفطر على كبير وصغير سواء كان صحيحا أو مجنونا من إخراجها إخراجها قبل صلاة العيد ولا تذكر بتأخير ونصف سائل من بر أو دقيق أو السوق أو سائل من تمر أو شعير أو زريق وزبيب وسائل ثمانية أبتل ودفع قيمة ذلك أفضل أحسن عليه فتوى لأنه أدفع لحاجات الفقير اللهم اجعل إذا اللهم اجعله إذا خير بركة واحفظ بلادنا سنغال وبلاد المسلمين وضرب لنا سنغال وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر سلطاننا اللهم انصر سلطاننا وسلطان المسلمين وانصر وزراءنا وقلاءنا وسائر الى يوم الدين وانصر اخواننا في فلسطين وانصر اخواننا في فلسطين وفي غزه ومسافرين والمقيمين في بر بحرك اجمعين ربنا اتنا في دنيا حسنه وفي الاخره وقنا عذاب النار سبحان رب المنصور وسلام الحمد لله رب العالمين رب العالمين rabbil alamin bu ñu fekkee daaw bu ñu fekkee daaw fekkee waat ko ren fekkee waat ko ren kon ñu jaajëfal borom di jaajëfal borom bi wa taala di ko kañ di ko kañ di ko bàkk di ko bàkk di ko delloo di ko jëmm ji nga xam ne muy jëmm ji nga xam ne asamaan asamaan musul tiim ku mel ni moom ku mel ni moom du amati abadan te du amati mukk abadan yàlla bind asamaan ak léegi yàlla bi mu ba léegi juróom-ñaari asamaan juróom-ñaari asamaan lépp lu ci biir lépp lu nekk ci biiram xayru xalqillah xayru xalqillah moo ci gën moo ci gën juróom-ñaari suuf juróom-ñaari suuf lépp nekk ci lu nekk ci kawam xayru xalqillah xayru xalqillah moo ci gën moo ca gën bu nekk doon moom bu nekk doon yonent bi asamaan du am asamaan du am suuf du am suuf du am kon di ñaan borom subhanahu wa taala kon bi subhanahu wa taala géeju xéewalam yi géeju xéewalam yi ak barkeem yi ak géeju barkeem yi mu deñ mukk mu deñ walwali di tasaare di kaw Seydina Muhammad kaw ko roy ak ko ko roy ba bés yowmal xiyaamati na mu ngi nuyu mbooloo gi yàpp mbooloo jullit gi fi teew képp ku fi teew muy góor muy góor muy jigéen muy jigéen mag muy mag ndaw muy mu ngi lay nuyu imaam mu lay nuyu di la sant di la sant la ziyaare di la ziyaare bu tedd bi jital suñu nuyoo jital nuyoom ah, borom dëkk borom dëkk Boubacar kulubali muy Boubacar Koulibaly ak famem yëpp ak bu njabootam gi yëpp ak mboolem wa dëkkam yëpp ak mu wa dëkkam yëpp di nuyu di nuyu dëkk yi nga xam ne dëkk yi nga xam ne ñoo ñu wër ñoo wër sañ Bambara ñu bàyyi ko seen diiwaan tey bàyyi ko seen diiwaan tey ñëw ñëw ànd ak ñun tey ànd ak ñun tey ci julli bi tey ci julli fitr bi muy colère bi nga xam ne muy colère bi nga xam te ne moo doxoon moo doxoon suñu waayjur si diggante waayjur bi ak ñoom ak ñoom ñii ñii maam seen maam ci maam la woon ak maam bi la woon ñii ñii seen waayjur seen waayjur ak waayjur la woon waayjur bi la woon ñu ñëw fii tey ñu ñëw fii tey ànd ak ñun ànd ak ñoom jullit jullit idul fitr idul mbokk yooyu ne mbokk yooyu. ñu leen di sant ñu leen di sant. di leen di gërëm di leen di ndokkeel di nuyu sant di sant. képp képp ku ma bokkal. ku mu bokkal Alpha Xam. Mawlana Cheikh Alpha Xam. wayjur bi wayjur gi képp ku ma bokkal. képp ku mu bokkal ak moom Maam Samba. Maam Samba. imaam bi. jëmmam bi. muy maam bi muy maam bi. di jiital di jiital. ki nga xam ne ki nga xam ne. moom la yàlla jiital moom la yàlla jiital. suñu kanam suñu kanam. nekk bopp nekk bopp. njaboot gi tey njaboot gi tey. muy xalifatul amma. muy xalifatul amma. Cheikh Abdoul Khadir. muy xalifa Cheikh Abdoul Khadir Diallo. yàggal suñu kanam yàlla na ko bur yàlla yàggal suñu kanam. may ko wér may ko wér. may ko kattan may ko kattan. mu yàgg suñu kanam mu yàgg suñu kanam. ba at yi takkoo takku ba at yi takkoo takku yaa rabbi. yàlla mën na ko yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def. ñu koy nuyu di ko nuyu. di ko ziare di ko ziare. ci bés bii ci bés bii. ak mboole rakk ak mboole mu rakkam. fu ñu mënta toll fu ñu mënta toll. ak suñu jigéen yi nga xam ne. seen jigéen yi nga xam ne. ñu ngi tey ñu ngi tey. seen kër seen këru. ba borom kër yi. seen këru borom kër yi. di beesal di beesal. kóllëre kóllëre di beesal di beesal. mbokk mbokk. su ma diggante seen diggante ak ñoom ak ñoom الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين كوم كوم نيم كو واخي رك داي تنك رك نيغي بس بو ماغ نيغي سي بس بو ماغ نيغي سي بس بو تاد نيغي بايكو ناني تامين بايكو ناني وير بو ماغ تال وير بو ماغ ييت وير بو تاد وير بو تاد موي شهر رمضان شهر رمضان المبارك المبارك الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين لب لونتي جيف لب لونتي جيف موي نافلاي muy sarax yi muy sarax yi. yalla na ko yàlla nangu yal na bur yalla nangu ya rabbi. yalla bu ko yalla def yalla bu ko yalla def. ñu koor bu muju ñu koor bu muju ya rabbi. yalla ñu yalla booleel yalla nañu yalla booleel. ci xaaj yi nga xam ne yi nga xam ne. nar nañ koo gis nar nañ ko gis. déwén déwén. ci barke yonent ci barke yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. ngi bes bu ngi ci bes bu tedd. imaam nee na ñu ci bes bu tedd. bes bu mag bes bu mag bes bo xam bes bo boo bes la bes la. ci bes yalla bir bes yalla yi. sallallahu alayhi wa sallam. ne yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. bu mu deme Madina. bu mu deme Madina.

julli julli korite korite ak julli ak julli tabaski tabaski ndaw bés bu mag ndaw bés bu màgg guddi gu nekk ne guddi gu nekk guddi gu su demee ba xaaj ne guddi gu su demee ba xaaj yàlla dina ubbi asamaan yàlla dina ubbi asamaan ñetti yoon ñetti yoon ne kan moo may ñaan ne kan moo may ñaan ma may la ma may la kan moo may laaj kan moo may laaj ma jox ma jox la kan moo may jégal kan may jégalu ma jégal ma jégal la ba ñetti yoon ba ñetti yoon dina xew guddi gu xew guddi gu nekk bu dee aljuma bu dee guddi aljuma nag dina ko def dana ko def juróomi yoon juróomi yoon guddi arafa guddi arafa dina ko ubbi yàlla dina ko tijji juróom ñeenti yoon juróom ñeenti yoon bu dee guddi bu dee guddi korite la nag korite la nag ak tabaski ak tabaski dina ko ubbi yàlla dina ko ubbi fukki yoon fukki yoon ak juróom du ko tëj mukk ñu ba jullikat yi daje jullikat yi daje julli julli saafuwante saafuwante jeerewante jeerewante dellu dellu ñu soog koo tëj ñu soog koo tëj alhamdulilah rabbil alamin kon alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin beneen jëfu lislaam na beneen jëfu lislaam taxawaat na taxawaat na mooy mooy génne génne asaka asakay mutam ndax nangu koor mu ngi ajo ci génne ci génne asaka asakay murum koor na sallallahu alayhi wa sallam dafa ne koor koor dañ koo aj dañ koo aj diggante diggante asamaan asamaan ak suuf ak suuf asaka murum koor daal ne asakay murum koor moo koy yëkkati moo koy yëkkati mu jëm ci borom mu jëm ci borom bi kon ñu góorgóorlu ci kon ñu góorgóorlu ci génnee ko génnee ko képp koo xam ne képp koo xam ne yaa yore yaa yore dundam dundam muy sa muy sa doom muy sa surga muy sa surga Musa sa jabar muy sa jabar ak képp koo xam ne ak képp koo xam dundam dundam ci la aju ci sa loxo la aju nga génneel ko nga génneel ko ci dund bi nga xam ne ci dund bi nga xam ne moo gën a bëri moo gën a bëri waa dëkk boobu waa dëkk ba li ñuy dund li ñuy dundee muy ceeb muy ceeb muy dugub muy dugub muy mboq muy mboq bopp bu nekk bopp bu nekk ñaari kilo ñaari kilo ku mu neex tamit ku mu neex it mun nga koo génnee mun nga koo génnee ci ci xaalis ci xaalis ci njëgam ci njëgam allah incha allah Moy sabab bo xamne ne sabab bo xamne ne. dana tax dana tax. suñu koor nangu suñu koor nangu. ñu góorgóorlu kon ñu góorgóorlu. génnee lu génnee ko. jox ko miskin yi jox ko miskin yi. jox ko fuqara ay jox ko fuqaraa yi. ñu bànneexu ci banexu ci bes bi ci bes bi kenn bañ xif tay tey. kenn bañ a xiif tey. kenn bañ mar tey kenn bañ mar tey. bésu tey bii su tay gi yalla dagal na ci ñun dagal na ci ñun. ñu lek ñu lek ba suur ba ñu naan ñu naan. ba bare alhamdulillah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin na dañuy gattal rek kon day gattal rek nuyu nañ ñep nuyu nañ ñep sant nañ ñep sant nañ ñep gërem nañ ñep gërem nañ mbolam ñep ñëpp ay déwéni déwén ay déwéni déwén ay déwéni déwén ay déwéni déwén allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim yalla ko ñu sante yalla ya neena gannaaw bu mu sante yalla ya suñu borom sayyidina muhammad julli ci sayyidina muhammad na sant na mbolo julli gi ñep ñu fi tew gërem na mbolam mi ñëpp dindee na ti mbooloo jullit gi ñëpp di leen ne yàlla nañ ko fekkee déwén déwén ay déwén yu baree bari yaa rabbi yàlla man na ko yàlla nañ ko yàlla defal yaa rabbi ñu eh, ngi ziare ñëpp xalifa bi neen mu ngi ziare mbooloo jullit gi ñëpp maa ngi nuyu ñëpp mu ngi nuyu mbooloo jullit ñëpp di tàmbale di tàmbali eh, al imam imam eh, imamul masjid ne imamul masjid di Muhammadul Amin Muhammadul Amin xutba yi déglu nañ ne xutba yi déglu na ko. Euh, tegu na. tegu na. fu mu war a teg fu mu war a tegu. jaar na jaar na. fu mu war a jaar mu war a jaar. lépp mot na lépp mot na. mbaa xam la rek. ne mbaa xam la rek. Euh, pour ñu sanni ci ay kaddu. ñu sànni ci ay kaddu. moom matal na lépp. ndax moom imaam matal na yëpp. Euh, lii leen na xaaran. lii leen war xaaran. mu ngi ci. mu ngi ci. moom ak ay rakkam. moom ak ay rakkam. Samsidin. Samsidin. Nuuru Nuuru diin. Eh, Abdullahi Abdullahi Abdou Salam Abdou Salam Mohamed Tazine Mohamed Tazine Mohamed Kakoy Mohamed Kakoy Thierno Thierno aywa Serif Moulay eh, tafsirkat bu mag bi bu mag bi di Cheikh baat bi yàlla na wér baat bi yàlla na ko yàlla wéral ñi ma bokkal Cheikh Alpha Hamma yëpp ñi ma bokkal Cheikh Alpha Hamma yëpp bokkal Maulana Cheikh Alpha Samba ñi ma bokkal Maulana Cheikh Samba maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp maa leen di nuyu ñoom ñëpp sama yaay ji nekk si kër gi way juróom yi nekk si kër gi. di Daba ak Munna. muy maire Daba ak maire na yàgg fi lool. yàgg fi lool. di tette njaboot gi di tette njaboot gi. Eh, maa ngi nuyu sama waa këru papa. mu ne mu ngi nuyu waa kër papaam. di Cheikh Habib Diallo. muy waa kër Cheikh Habib Diallo. Eh, di jiital. di jiital. ki fa yàlla teg tey ki yàlla teg tey muy xalifam tey muy xalifam tey di Samba muy Samba Diallo ñu koy ne Amica Vie ñu koy wax Amica Vie moo ak mboolem rakkam ak mboolemu rakkam di Momadou Momadou Haroun Harouna Omar Omar Fodé Bunaama Fodé Bunaama ak suñ jigéen yi ak seen jigéen yi suñ yaay yi fa nekk yaay yi fa nekk ami ak xawa ami ak xawa yàlla nañ fi yàgg te wér yàlla nañ fi yàgg lool te ànd ak wér eh, góor gi wéetal nañu eh, góor gi wéetal nañu di Cheikh Habib Diallo di Cheikh Habib Diallo nañ ko yàlla fayal yàlla nañ ko yàlla fayal yaa rabbi yàlla nañ ko yàlla fayal yàlla nañ ko yàlla fayal ñu ngi ziare waa dëkk bi di ziare waa dëkk bi di jiital borom dëkk bi jiital ziar borom dëkk bi Eh, borom dekk bi koku ne borom dekk bi mom eh, koku sama sama seexandoom la. kooku seexandoom la. ak sama waji nek ni ak wajam bi nek ni di secrétaire Cheikh Alpha Hamma. di secrétaire Cheikh Alpha Hamma. di ibrahim Sanjugu Coulibaly. Ibrahim Sanjugu Coulibaly. man sen digante la yaro moom sen digante la yaro Sanjugu. Sanjugu ak borom dekk bi. borom dekk bi di Boubacar. Eh, kon nag yàlla na yàlla fay. yàlla nañ yàlla fay yarab bi. yàlla nañ fi yàgg lool. yàlla nañ fi yàgg ak borom bi. borom dëkk bi. li mu si dëkk bi. muy naataange yàlla na ko yàlla def lépp lu mu ragal si biir dëkk bi muy safaam yàlla na ko yàlla jëñax eh, Sandiougu ñu ngi koy sant di ko gërëm eh, mooy secrétaire wayjur bi eh, ak ñoom Cheikhou Koulibaly ñoom Kalfa Koulibaly ñoom Ousmane Koulibaly ñoom Dadi ñoom Daouda ñoom Mamadou Traoré ñoom yëpp. Eh, ay njaboot Cheikh Alpha Xama lañ waa kër Ousseynou Sakho di allah ji jàmm Soma Ba waa Soma Ba lay sant nañ gërëm nañ eh, doomi saan yi eh, sant naa leen gërëm naa leen seen suukaru koor naa ko de ñii di wéef ñii di orange money ñii may ñii yónni seen seeni njaboot ñëw si Eh, borom dëkk bi mooy premier bi yaakaar naa toolu xoromam bi eh, man maa ko fa bàyyi eh, ku fa jënd ah sama sama wàll dafay ñëw mooy borom dëkk bi daaw sama xaru tabaski moom moo ko jëndal sama sukaru koor kazalika noonu di borom dëkk bi Sandiou Coulibaly sama suukaru koor ak sama ndëwën ak loolu la tegaloo Ousseynou Sakho di doomi Nana Koulibaly Pape Sakho bu Alassane Wade eh, njabooti Khalifa di Modou Seck mu jaare ko si Arouna eh, samay rakk di Vieux Haroun ak eh, Ousseynou Koulibaly di Asaka Pape hmm. noonu lañ Paa Kulta mu nekk Gambie eh, ñoom ñëpp sama sukaru koor teewal nañ ko ñuy yónni seen soxna ñii di ko wéef ñi di ma loxo ñii di ma yónni orange mu ne ah loolu bëri na macha allah sant naa leen gërëm naa leen xataa Seex Kulubali sama sukaru koor yegsi na kontaan nañ sant nañ nañ eh, kon yàlla nañ ko fekkee déwén. ay wërsëg bu yaatu bu gudd fan dëkk bii yàlla na fees ak naataange su nuyoo lu ko wër ci alfa xamma noonu la ko doon waxee eh, saañ pël ngaan eh, diya ngooj mbel eh, diya kunu kunu sibasoor kabatooki ganjaay gambul ngalxayaay fépp ba du kon nag ñu ngi nuyu ñëpp gis nañ ñëpp sant nañ gërëm nañ eh, kon Sénégal eh, ñu ngi ñaanal Sénégal bu baax a baax ñuy ñaanal ñu yore nguur gi di Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre am di Ousmane Sonko yàlla moo leen kunuyungur nuyu nguur ñu ne da ngay politique su fekkee loolu la ah kon ñëppay politique de parce que fu ñu nuyu leen ñu sant leen gërëm leen seen takkandeer bii takkandeeru yalla yàlla moo leen fi teg soo nangulee yalla nangu yonent bi da ngay nangal nguur gi kon nag seen nguur gi yàlla na Yalla jàppale yàlla na yàlla dimbale fu ñu bugg a Sénégal am mais ñoom tamit ñu góorgóorlu ñu góorgóorlu askan bi ñu bañ a am eh, ay fitna parce que seen doole suñ ko génnee lépp lépp ba doole bi mel ni man ah munuñ koo dékku kon nag ñoom tamit ñu dal ñu ñu ñu yërëm askan bi yërëm population bi di dox si soxla population bi eh, suñ mbokku Casamance eh, nañ dal. suñu mbokku Casamance nañ dal eh, xaw ma MDC xaw ma lan FDC waaw eh, seen wax yi fan yi si eh, borolog yi xaw ma borolog ak ak TikTok yi ak ci Face yi ak ci réseaux sociaux yi ah teel na de teel na trop ñii toogaguñ ngeen di yónnee di yëkkati drapeau ah réew mu mel ni Sénégal ah loolu xaju fi Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar ku wax na tey Sonko premier ministre la du du du Sonko Casamance kese de Sonko Thiès la Sonko eh, saint la Sonko Louga la Sonko Kébémer la Bassirou Diomaye du Bassirou Diomaye njaga ñaaw nekkul région bu Thiès Kaolack ci la bokk Fogni ci la bokk eh. fitna baaxul xam nga fu muy fu muy commencé ما خمو فمي يم اي سقط الفلل يلا nekk naayib nekk naayib ci imam ci imam ah ma ne ko Cheikh Idriss ma ne ko Cheikh Idriss ah Cheikh Idriss eh, yow borom njaboot nga de yow borom njaboot nga eh, soo amee soxna soo amee soxna am njaboot am njaboot ah dafa am lu ñuy laaj dafa am lu ñuy laaj ma ne loolu dina kii de ma ne loolu dina kii de mu ne ma loolu yëpp jox nañ ko yàlla jox nañ ko yàlla ak yonent ak yonent eh, bi ak wayjur bi ak maam ji ak maam ji ak Cheikh Jilaani borom Baxdaan borom Baxdaan jox nañ la ko jox nañ la ko nga defal ma ñaan nga defal ma ñaan yàlla oyofal ma ko yàlla oyofal ma ko ba léegi ba léegi Idriss amul tànk gannaaw tànk gannaaw tànk kanam la am mag ay magam ay rakkam imaam fu mu tokki moo nekk si jumaa ji imaam fu mu tokki moo nekk si àlluway moom ak Seydi Moulay Hassan ak ñoom Nooru Abdullahi Kaakoy Cerno Serif ak eh, eh, kii eh, Tazin ñoom yëpp kon nag sant nañ gërëm nañ Idriss xam-xam bi yàlla na barke yàlla na yàlla jàppale sant nañ gërëm nañ déwénati leen kon aljuma bii ñëw ci topp ci topp mooy kaamil bi mooy tafsir alquran kon eh, ziyaare nañ kilifa diine Sénégal yëpp diine Sénégal yëpp eh, julli gi tey julli gi tey ala daw mi na ala daw mi na yaakaar na ñëpp a jullandoo ñëpp a jullandoo yàlla lu mu wax yàlla lu mu wax yaxtasimu bi xablillahi jami'an wala tafarraqu eh, mooy leen si buumu yàlla bu leen xaajoo suñu xaajoo rek dañu sotti de suñu defee pàcc pàcc dafay wàññi suñu doole mais suñu téyee mu xamee tijaan bu mu xamee tijaan tijaan bu mu xamee laayeen bi laayeen bu mu xamee xaadir bi ñun ñëpp jaamu yàlla lañu nañ ciyee bu mu yàlla bi su ko defee xëccandoo dóorandoo islam dafay day daal di am ndam islam day daal di am ndam ñu rafet na lool ñëpp a génnandoo ñëpp a jullandoo macha julli julli julli yu bëri mel nii bisaay rasulillahi sallallahu alayhi wa أبى الله أن أصوم إلى غير شيخنا إمامي هما ميزاك أحمد التجاني